Sima TV man maa leen bëgg. bilaay suñu ànd bi moom sincère na. xale bi xew si jamono ah xale bi nga xamante ne moom la ñëpp bëgg yëngal nak saa bu ne génnee mu neex ak cung bas maa ngi leen nuyu di la ziar. maa ngi lay fay pël di la bége di siyaar képp kuy seetaan internet yëpp maa ngi leen di bége di bége àdduna. waaw parce que naa yëgoo sedd bi tamit. non seddu ma ah waaw nice. solo ma kutuma solo ma solo ma solo ma suwet ma. vraiment ma sa sol maa xam ne lu ma mën a bëri affaire. ah nee nañ marié du ñu yëg sedd. non sedd ñëpp koy yëg sedd si xol la jëm amul mari amul célibataire. parce que dégg naa ñu da ngay classe li nga xamante ne mooy célibataire lan mun a jaral ma kenn bu mu dugal classe ma kenn classe kenn. loo wax ci célibataire. non dama ne ku yor góor gu baax na nga ko téye yéen loolu wax naa leen ko waxuma leneen lu jëm si leneen ak leneen ñu wax si leneen waaye ñu wax si raaya bi <laughs> ñu wax si raaya bi indi ñu fi. mu mel ni c'est c'est pas la première fois nga soog a ñëw ci raaya ah, mhm. waaw waaw waaw wax la ko newoo gulet la mais sa réaction la. Ah, mais kontaan rek parce que tamit ñun rek duñu artiste ñu fi bokk ñëpp ñu artiste kese Sénégal artistes yi kon tey boo si bokkee bokkaat ci nga war a sant yàlla gën a liggéey parce que ba ma daaw jël meilleur artiste révélation dama ne ah su ma ñëwaat déwén dinaa taxawaat fii dinaa liggéey lu muy indiwaat fii waxoon naa ko ci micro bi jour boobu noonu mais na kont buñ la si boolewaatee tamit damay taxawaat fii ne ne incha allah tamit at bi ñëwaatee si kàttu yàlla yàlla bàyyi ñu fi mel ñu jàmm dañuy ñëwaat taxawaat parce que liggéey rek ay fay fii amul secret amul tricher kenn moomu liggéey rek a fi bas dafa ñëw indi bas dafa ñëw di fàttaliku. waaw temps booy. loolu waral lépp temps booy ku ne. la teg ku ne jaar nga ci. laay caw ñaanal ñu fàttaliku tanwoy Seydou Diagne dikkal ñu fàttali ko tapal ma ne sëgg kon bascule loolaam day dikkal tanwoy <laughs> bul bul bul dem fii nag yow wooy lool yow boo demee du arrêté eh, eh, wooy lool mu jeexee laa ñëw indi sësal non sësal moo ñëw sësal ñëwee après tak cororo ñëw ambiance yow loo indi rek affaire bi dafay neex tey secret bi lan waaw yàlla rek moo si jàpp xam nga ndax jàmbaar amul te kenn mënul yàlla jàppale fi nekk rek xam naa yàlla mooy jàpp si affaire te yàlla yàlla xeeb doole rek. bi neex. waaw waaw waaw ambiance. waaw bi moo mujjee génn sibiri bi moo génn dafagul un mois sax moo génn temps yi moom la ñu war a. moo ñëw waaw ñamax ñamax yi. ambiance waaw waaw waaw àdduna gars yi bëgg nañ ko trop. waaw dëgg neexul ambiance bi moom man mooy sama sama man. nañ ne fàttaliku temps booy moo tax Bass Thioung génn mais si quatre yi nga jot a génne yëpp ban moo la ci gën a neex ak ban moo ban ban nga ci gën a yëgee sa laa si gën a yëgee sama bopp ambiance ci la bokk parce que tamit xam nga Sénégal métti na méttiwul des fois di nga ñëw première fois di nga def am yëg-yëg am talent boo xamante ne yow ci yow nga ñëw def ñu naan non kii bu defee li day fay wala benn bii ki mënul defaat leneen loo xamante ni non kii mënul nekk wala ki amaatul xam-xam mi defee leneen parce que xam nga tamit nit saakul boppam yàlla mooy maye te tamit yàlla mooy lu mun a si rek da koy def waaw moo taxoon tey jii nii ba ma génnaatee Zezel ñëpp ne waaw ma ne ba tey doy ambiance bi nag si la ñëwee génn gars yi nag am nañu kii am nañu naan lii am nañu naan lee mais maanaam ñëpp tey jii nañ la kii mi ngi def lu nice quoi ndax kenn mënul quoi ndax ku nekk tey ku la saf am na ñoo xamante ni safu leen keneen moo la demee daal waaw relation ak dafa nice relation El Hadj Keita tey bu may lim fii laay fanaan mhm. tey Seck lan la ak lan moo tax ñoom nga ñëw rek ngeen bëggante. waaw parce que nit moom lépp looy dund rek da ko dund naturellement quoi man ñëpp samay waay lañ parce que mooy li ma boo xamee ni tey jii li ñu nekk nii fi ñu taxaw tey am nañu fi taxawoon te ñu nit fi ñuy taxaw ëllëg am na ñeneen ñu fi war a taxaw ku lépp dañ ko war a naay sal fii tamit artistes yëpp si am kenn yorul wërsëgu kenn. ku su nekk tey jii nii yàlla moo lay jàppale mais dina am ñoo xamante ne dañ lay conseillé ne tey jii muy waali muy tey daam seen bi ma taxawloon sama daf may conseillé Pape Diouf ñëpp képp képp kuy artiste tey jii ba suñuy papa ay con sek ak ku ci taxawal tey jii dañ lay déglu nga ñu lu ñuy def parce que ñoom ñoo ñu mën a lu ñuy def parce que ay xale lañ kese am bëgg-bëgg bi am yëg-yëg bi gëm suñu bopp parce que Bass Thioung newul si label kenn newul sama ginnaaw maa ngi koy jaayante di ko gérer ba fii nii tey jii nii muy clip yombul nga nekk di demal sa bopp yooyu yooyu noonu yëpp tey jii nii lépp loo am rek mérité nga ko waaw. Mhm. koo xaar clip bi ñu xaar ko kañ. non si décembre bi incha allah. si décembre ah mais liggéey moo war daal man moom toltumaa yi wax wala yi soo gisee sax yi may émission sax bariwul parce que xam nga rek waaw xale lañ tologuñ fu ñu war a waxee quoi dañu war a job. waaw man loolu laa loolu laa gëm quoi man loolu mooy sama but quoi mooy job lu bari xam nga. waaw nekkaat nii nii nii nii position yi war a génn sax deux mille vingt nii nii nii pare na teg nañ ko nii si kàttanu yàlla waaw lépp lépp lépp lépp parce que tamit xam nga rek job daal moo fi ne quoi parce que boo xoolee li la indi fii liggéey la kon la fay yéegalaat kaw tamit liggéey lay doon du doon ay foo doo fii rek di bàyyee ko wala no mais maanaam daal liggéey la daal waaw liggéey daal job rek ah non des na waneeguñ dara parce que tamit waaw li des bëri li si kanam moo gën a métti dañu war a gën a job ñamax-ñamax takugo sagunda coroɗon ɓurangogo sagunda sagungo dacc <laughs> man maa leen bëgg bilaay suñu ànd bi moom sincère